ñu ñëwaat ci combat euh, sa diggante ak Lac Rose parce que euh, dafay bëree gargambose Mbossé première édition euh, am loo xam ne dund nga ko ak ñoom bëggoon naa nga leeralal ma loolu nu mu demee tuuti ba keroog bi mu ñëwee làmb ja ak li nga ne Lac Rose dina toog juróomi at yoo xam ne du daan mbër. waa xam nga Lac dañoo bokk dëkk. mu rafetoon lool. muy bëre contre Modou Anta ma ne ko carte téléphone woo ko ne ko génneel ñaari pitax yu weex. ni ko doxal ba si sele yoon wax ko li ma koy wax. ñuy déggoo téléphone laa wax de wax ko combat bi yàlla xam naa ak yeneen ak yeneen. ma jàppale ko si yooyu. waaw sunu làmb ñoo seet si ma ñu toog ma teg affaire yi yëkkati yëkkati yëkkati wax làmb yi mu ne du daan garga su nekkoon tey tey tey tey du ko daan mais su jógee daan combat bi. li ma ko waxee ñu xëy def ko soleil sunu làmb coow li bëri lool biir ndakaaru man sax stade boobu amuma si dama dem di ko jëndi fekk di dem tribunal am lu ma doon li jëndi ñu ne waa ji génn si télé bi de eh, mooy loolu si ngoon gi ñu yànni ma bataaxal ne ma Lac Rose waa ko ñu Lac yaa ngi wax sama nijaay day ñaan taal otom ñëw sama kër ne ma problème bi may dégg ndakaaru lan la ma expliqué ko mu taal otom dem kër ñoom Lac soo xoolee sama kër mu ngi mel ni fii nii ngeen nekk ak fi ngeen jóge si angle ba. waaw si ginnaaw angle bi noonu mooy kër ñoom Lac Rose. ñu dem fa waxtaan bi ñuy waxtaan ma woo tons ne ko tons ba mooy ma ne ko Lac Rose nee ko ko. ndax lébu la ñuy ko may 117 dinaa ko may benn nag mu préparé combat am xam nga ki la wax loolu bëgg na jàmm. man maa wax loolu sama nijaay ak may seetaan mu may dégg. bi sama nijaay demee wax wax wax sama nijaay tamit ne ko dina ko jàppale. ne ko du du am defet sama yaay ñëw si kër ga wax ak man li ma xamoon ma ah. ma xëy lande mi dem jaale ji benn dëj ñëw fekk la ñu saccagé sama kër lépp man bi ñuy saccagé fekk ñu ma fa dama demoon dëj mu bëri nag dañoo foog ni laal nañ ma dara xuriwu ma ci dama jógee dëj ba tugg sama biir nekk tëju di waaj a recevoir samay client si la problème bi am ñoom gisuñu ma gisaanuñu ma yaa ngi dégg mm-hmm. média wu gi yëpp ñëw ma ne leen ma téye kaamil sama loxo jàpp ba set daraay sobe topp ma ne leen dina bëre juróomi at du am ndam te fu leer laa ko teg bi muy bëreeg Moussa Ndoye nga dékk micro Moussa Ndoye Moussa Ndoye mbër bi muy bëreeg Lac jàppale naa Moussa musaandooy Moussa Ndoye ba combat gi lépp ñu ngi déggante dama nga laaj Moussa xam nga tey da wax a moo tax ma wax la lan moo waral loolu dafa am euh, luñ la def mu metti la loolu ba tax nga tëkk ko wala la du question tëkku gis nga sëriñ suñ la dóoree ba àdduna ñëpp xam dañ laa dóor kilo la dóor da nga koy wan ni man man dafa am lu ma àndal loolu mooy wax ji ki la ni juróomi at ngay fayee ko ay million boobu ba tey munoo daan mbër loolu mais loolu pare naa ci yéen ma ci laaj moo tax ma ma ma waxaat ci ak li ma génne kii bi mais loolu pare naa ci parce samay cinq man na cinq yi moom dama ko géré woon téye ko. ah man ah, ma yaramam de. la ma àndal man sa Ndiaye baal naa ko mais la ma àndal te xam na cosaanu loolu ndax lébu la la ma àndal du baale muy ba biir Cap Manuel la ma àndal du baale mun nga ma def nag man Ndiaye man man man mi toog en personne ma lay baal mais la ma àndal su xasee ba jug du baale du mooy tamit la ma àndal du la mooy fenn sa lépp lay rajaxee te la ma àndal mag du ko dëkku gone du ko dëkku ab cosaanu koy dëkku ma wax la ko. sa diggante ak Garga Mbossé lan na waa Garga gi nga bi loolu amee. fekk période boobu sama nijaay mu ngi ñaanal Zos. soos contre Tidiane Faye sama nijaay ko ñaanal bi muy daan Tidiane Faye yooyu yëpp. mu jàpp sama nijaay ne ma doxeel nii doxeel nii ma doxeel nii. bi mu amee mu jël combat bi. mu yóbbu Garga stade maa ngi toog sama kër di liggéey. boobu maa ngi escape urbam parce que dama mujjee tuxu ñaari tal ndax coow li dugg dëkk escape urbam ñu yóbbee garga ñu toj bopp garga combat li ma la si ay mbàkke mbàkke yu si jàpp samay xaritu mbàkke mbàkke yu si jàpp da nga ma naan déedéet combat bi ñu garga ñu yóbbu garga ñu combat ma def confrontation cinq jours avant combat ma taxaw bisu laaj ma si lool ma ne ko day daanu mindeef munu ci dara ci kàttanu yàlla day daanu day laal suuf man maa ko wax <laughs> te la ma waxoon moo am. day daanu boobu Garga moo la fayoon pour nga liggéeyal ko wala. est xam ne Garga bi muy teg ngéemam xam nga yow fekkante nañ fa. Mm-hmm. bi ñuy teg ngéemam maa ngi dugg si biir kër Garga di toj di teg ngéemam Garga maanaam def na ay saraxam mais la ma ca def moom Garga xëy na defu ko ca si sama côté. parce que Garga ak Lac la woon mais lagros ak Idrissa Ndiaye la woon tamit mais loolu jeex na jéggal nañ ko baal nañ ko. mais nag su bëggee melaat na meloon na ñëw ñu toog waxtaan ñu ne ko na jaar soxlaw ñu dërëmam nag ndax ñu ngi tedd ñu ngi sant yàlla. na ñëw mu jaar fi mu war a jaar ñu ne ko demal sàngam ak sàngam géeju su mbéjum demal Cap Manuel sàngam ak sàngam nga def ko fa mu def ko fa xool. Lac Rose bi nga ci kàttanu yàlla bu neexee yàlla ngeen mais man jéggal naa ko loolu pare naa ci xëy na émission moo tax ñu jëm man yooyu pare naa ci maa ngi ci yeneen léegi ah man maa ngi ci maa ngi ci maa ngi ci yeneen